Mal la euh, Pape ancien international sénégalais ancien capitaine du Jaraaf actuellement membre du staff du Jaraaf Wa di leen wax ne rek euh, dañ leen si final bi ñu jëm dimanche le 27 stade euh, Abdoulaye Wade di wax ne rek comme Jaraaf nu ñu ko xamee ñëw leen ñu supporter suñu équipe en masse ñëw jàppale équipe bi yàlla may ñu ndam waaw parce que ku ko xam rek xamee na ko si championnat wala si coupe du Sénégal. waaw xëy na nag euh, depuis 2013 lañ koy jël euh, coupe bi mais tey yàlla def nañ bañ dem ba final tey ñëw leen ñu jàppale équipe bi euh, pour ñu jëli ndam li parce que jaraaf tey famille la tey ñëpp xam nañ ne jaraaf devise bi yaru yeewu yeete la di wax ci violence bi tamit nañ dem solu ba set sangu ba set ñëw support suñu équipe yàlla may ñu ndam ñu jël coupe bi dawa ñëw moom Medina indil ko uh, wow.